lii du ma xutba waaye li wóor bu wóor mooy Macky Sall moom huit mois moo ko fa des képp ku nangu mu lay def loolu dara nga di ko def bis dina ñëw di nga compte. Hmm. te foofu lañ toll nag. bëri na xale yuy génn di wax nit ñi di leen diaboliser mais bu ñu xam xale yooyu lan lañ dund. Hmm. bu ñu xam dund man ñaawlu ma man damay ñaawlu wax ju ñaaw fépp fu mën a joxe. Hmm. ak boor bu mën a doon. mais képp koy wax nañ xool lan moo ne ci gën a wax ji. ak nañ dem yónnee ko ay médecins ñu xool ba na wala aduma ne kenn nag dafa manke xelam dafa manke wala ki ko so wax mais li wor bu wóor mooy gouvernement Macky Sall def nañ gone yi lo xamanteni ni dal ku togon ci télévision diko wax sa yaram day daw xale yu bëree bëri ñi ngi dox ni rek mais nekku ñu 100 wallahi cent wallaahi la xasin ñooñu liñ gën a soxla moy assistance taxaw gu wér a wér a wér ci social ci sociologue ci yenen ci yenen ci yeneen waaw loolu ci laay wëlbati wax ci kaw fal xali boobu ñu japp mhm. xali boobu 11 mois lañ ko tej ci diggante papaam neraw fi moy xale bi ñuy def retour de parquet bu ko def mandat de ci nan dafa saaga Alassane sal dafa saaga procureur 11 mois lañ ko tecc fukki wër ak ben bayam faatu ci digënté bi demoon na ba awra bi dafa commencé wona yaq wallahi la lancim billahi la ilaha illa bayam faatu jabaram dem ci digënté bi koku togn bu ko yoonu Sénégal togn te ba léegi réparé buñ togn buñ ko bëggé ko bëggee wëlbati dugal ak est-ce que du metti kon procureur ak ñeneen nañ bàyyi seen caaxaan yi ndax tamit nit ki amul lu lu dul ki mu fonk ñom bu amul ku dul Ousmane Sonko gëm ko ba mu gënal leen seen day gënal leen seen bay nit ku tekki wul dara tok fële di ko saaga bu dig beccëk ñom ñu jogal ba di ko di protéger Ousmane Sonko leneen bëgg leen ci fekk lay metti doon di wax ñaw da ko ci fu mëna mën mais xalé yi nag tok gi ñu leen tooñ balaa ñu yor dara nañ ko réparer ba pare loolu moy dëgg <laughs> kon alzan fat moomu man d'accord ma ci li wax tay jéggul na tok moom lu mu ri ma ngi jéggalu man na ko fat mais nag bu fàtt dañ koo tooñ te ko onze mois prison fukki weer ak benn baayam faatu ci diggante bi jabaram dem kon xale yu mel noonu li ñu gën a soxla mooy taxaw te yoon tamit mu am tuuti sa tolérance ndax tamit lii dëgg dëgg man déglu naa wax ci rafetlu ma ko mais luñ mën a comprendre ndax daanaka bu fekkente ni Azora Fall lii mu def président Ousmane Sonko ay daan fekk ko ci loolu la ñëpp waxoon ay saaga mais li wóor-wóor mooy kooku noonu sant Fall buñ ko bàyyi woon guerre civile mën a am ci réew. ndax ñu bëgg Ousmane Sonko duñ ko bàyyi. ñun ñi nga xamante ne dañoo jël suñ suñ suñ deret. Mm-hmm. tudd ko président Ousmane Sonko. loolu Assaoua Fall wax lu ñaaw ci Ousmane Sonko buñ demee ba demaat dix ans ci kanam ñu génne vidéo suñ doom yooyu noonu ne kii leen seen bàyyi ñu yey kon il faut nañ bàyyi seen caaxaan yi nit boo ko boo ko nit boo boo boo bañ a jotee moom li mu gën a bëgg da ko koy bëgg la mm-hmm. Ousmane Sonko nag li wóor ba wóor mooy li kilifa yëpp doon la doon ci dëkk bi bari na ci ñun ñoo xam ne daf ñoo jaral lu ne ku koy tudd nag lu ne mën nañ la ko jaay kon na jàpp naa ne il faut que su système mu am tolérance bu mel noonu lu ko mooy day créer conflit te ñenn ñu bokk Pastef it bëgg a yàlla yemale baax na mais am loo xam ne lu yemalewul booy Pastef yi yara dikuwuñ duñ déplacé duñ wax nit lu ñaaw ñiy wax lu ñaaw ci beneen côté ba lañ tëj mhm. yow nag bu fekkee da ngaa bëgg naan ku fi wax lu ñaaw ku mën a doon nañ ñu mais xale yi dañuy delloo ak tooñ depuis ñi ñàkk ba léegi ñaaw lu ñu ngi koy jël di ko yàq président Ousmane Sonko diko yak ñeneen ak ñeneen surtout président Ousmane Sonko xam du président de la république mom jomaay président mais dañ mëna moy sa seen doom bàjjan lu ñaaw lu ne moom lañ ko yak di ko wax lu ñaaw bu xalé yi reposé ñu légui dañu japp ndax yoon ñepp la fi nekkal nga gis ñu xam dañu bok bokk Pastef défendre lool lool d'accord ma ci lool d'accord ma ci mais est-ce que euh, bi ba da ngay li ngay ñëk laaj moy justice lan lay xaar ci ñoom mhm. ba légui ñi ngi yëk dé cadre yi ñaar di ko Ousmane Sonko di xey di yéwo seen kër yi mhm. loolu fenn Pape mhm. est-ce que du euh, sëñ bi boo waxee loolu dañuy naan da ngay parparloo

ci diiran mak sal tok fi ba doy na. ah liggéeyam la def mais deful ñaawteef. bu mu ci dolli waat leneen kan? loolu liggéeyam lan eh, caaxaan doy mhm. li wóor wóor daal man lu ñaaw bugguma ko te mosuma gis politique politique naa ba jeex lépp lu ñu wax Ousmane Sonko lu ñaaw au niveau national wax nañ ma ko lu ñaaw au niveau local man lu ñaaw loolu dégg na do gis ma porte plainte nit do gis ma yóbbu nit coon sama niveau ëpp na loolu mais daal bu bëggee att atté bu maalu nañ xool kàddu yu ñaaw fan lay jógee. Mhm président Ousmane Sonko magal 2021 lam wax ci bir kër si Mountakha. oui dana kep kuy wax nit lu ñaaw bo boolee Sonko ci bop boppam Sonko boolewul ci bop do gis kenn kuy wax lu ñaaw Sonko di and ak yow ki ko soit andu ji d'accord ci mais nañ xam ne dafa am ñu ko yaakaar am ñoo xam ne seen diggante président Ousmane Sonko weesu no politique. weesu no politique dañu am pass pas mu jaral leen lu ne mënuñoo ko Alassane Alassane Fall mi ci la bok waaw man xawma ko directement ni mais xam naa ñu ko xam. li wóor boor mooy Ousmane Sonko gënal na ko gënal na ko lépp lu am ci àdduna kooku bu wël bu wël bëri ko ñu bëgg koo teg ay daan ci yu mel nii ba pare ñu tëjoon ko 11 mois diggante bàyyam nelaw fi loolu lépp réparé guñ ko ba pare bëgg koo tëj ci ay caaxaan yooyu baaxul nañ li may li may wax daal mooy nañ bàyyi doomi jàmbur mu dem ñibbi waaw te da jéem ko assister ci côté yëpp nag

ak ñoom ñëpp rek ak baaxum ak Abdou Karim ak ñoom ñëpp li ñu fi def kenn mënu koo fàtte ah man de discuter ma ak président Ousmane Sonko lan moo tax ñëwul ci dialogue ba mais xam naa ne moom bu fekkente ne mën naa toog jàkkaarloog ñooñu ñuy wax ci justice moom moo ëpp xol man de mënu ma ko ndax nag nga dégg si am yëpp ñoom la au début à la <laughs> loolu nag fàtte ko mooy nga nekk naa fekk rek wala ngay jéem a tolloo de kenn mënu koo fàtte. tey jii bu ñu nee ba président Ousmane Sonko nekkul président de la République Sénégal grâce à ñoom teguñ ko fenn. c'est vrai gémmiñ bu waxul dëgg wax ay naka saxal la. dëgg la Sénégal li fi xew Macky Sall dafa amoon ay siis yoo xamante ni dañ leen mën a corrompre ñu nangu noonu la amoon def ay siis yu diñ yoo xamante ni dugg ci histoire Sénégal ku ci mel ni saa Bassirou ak tan can kooku noonu. coon co waaw ah. loolu mooy dëgg kon jàpp naa ne réforme justice bokk na ci nga raxas bañ set bañ xam ne ku def lu bon li moy payam ku def lu bax li moy payam mais buñ neew bu rew mo xamne def lu bon ak def lu bax man lañu tolo wax deug yalla ko yebbu nga toxu ci rew moo xam fene fo dëkk ni il faut que ñu sanctionné moom euh, Ousmane Sonko premier ministre mi ngi koy wax sax ci bisu set setal bi mu ngi xamal sénégalais que ni ñi nga xamanteni ni euh, lii ñu dund yépp ci ay jafé jafé ay nit deeseek yooyu euh, ñooñu foog ñu sanction sanctionné leen donc dafa melni yoon bi nga jël nii la premier ministre bi jëm moom Ousmane Sonko. Pape tar loolu kay mooy deug ndax bëri nañ ci xale yoo xam ne dañoo faatu seen yaay ñoom rek lañ amoon bëri na ci ñoo xam ne dañoo ñàkk seen liggéey bëri na ci ñoo xam ne ba léegi mënuñu def dara xam nga li tax may wax li Pamba dara du question ñaan du question dara ndax man fa ma juddoo kuy fayantoo faa juddoo waaw ah, loo xalaat ci insisté nañ ko si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul fukki nekk résidence surveillance ñaari at mu nekk ko ci loxoy tubaab bi bi mu ñëwee li mu njëkk a xam mooy pardon jéggal naa ñëpp xam mais dafa am tooñ koo xamante ni boo ko jéggalee day day day daganal def la neex ci réew mi dara du la ci fekk ndax nag ñun ñëpp buñ mënee tëdd di nelaw ba yàndoor day fekk si si moom boobu waaw wane yoon nag mooy sanctionné ñu jàddoon yoon ba pare nag fa yéene tege ci yoon <laughs> man daal réew may reefee dugub dund fa mooy réew moo xamante moo amee jafe-jafe doomu président de la république bu may dem ci yoon nelaw ba yàndoor te mën naa nekk sa xel dal waaw te mën naa nekk mhm. li tax mën a nekk nag mooy li fi nekkoon lépp mënuñu xëy xëy fàtt dafa am lu tax ñun ñu jaayoon suñu bakkan pour projet bi mën a taxaw loolu it ñii jose ñii jiite réew mi fàttewuñ ko ndax ñàkk ko fàtte moo tax jël ministre de la justice boo xam te ni sa def politique te fi mas a jaar yëpp nit ñi dañ ko naawloo maanaam boo xoolee Ousmane rek jub ngay njëkk jaam ci njub nit la loolu mooy dëgg Ousmane Diagne boo xoolee bu ne ko jàkk rek lii njëkk ñëw ci sa xel mooy kii ku jub Sénégal yëpp respecté ko ngir jaar jaaram ngir parcours am Ousmane Diagne li ñu wax ci moom lépp li wóor wóor mooy bu ko président Ousmane Sonko di ko wowoon ci dossier ne ko defal naa ko mën a da koy coupé démission bu ko bi muy jug ñoom commencé gu ñu liggéey bi muy liggéey commencé gu liggéey kon bu leen nangu la nekk ministre de la moom mu jàpp ne ñun ñëpp la nga xam ne kenn fréquenté wu mais loolu lañ dégg ci moom ndax Ousmane Sonko li ñu jàngal mooy homme politique parcours la ak discours kon parcours Ousmane Diagne tax na Sénégal yëpp wóolu ko kon li ñu xaar rek mooy ay Ousmane Diagne écopé fépp ci justice bi te tax ñun ñëpp ñu nelaw ba yàndoor. beneen mbir. mais mënoo jël Ousmane Diagne jël procureur de la boo xamante ni ñaaw te yëpp moo ko fa def ñu bàyyi ko bu bi ñu fay war a jëlee. beneen mbir boo xamante ne aussi euh, wax na ko euh, mi wàllum littoral bi ak wala euh, nit ku nekk rek jóg fu la neex nga tabax. loolu mu ni dafay day dàq ci biir réew mi quand euh, bu ñu demee ci euh, littoral bi gis euh, ni ko gars yi caax-caaxe day gis mbuurkat ak yooyu finalement da ngay lan moo taxoon Macky Sall ak kii ñooñu bëggoon des ci réew mi. <laughs> waaw lu bëri yëpp ko waral xam <laughs> nga tey ba ba ba ba Sénégal juddoo ci réew mi. pour nga am kër Dakar il faut nga nekk milliardaire wala millionnaire. c'est impossible. Mm-hmm. bëri na booy Dakar yoo xam ne ñay dëkk ji mbuur wala ñay dëkk fenen ak fenen wala ñay ngay ñëw dëkk toxu si Tuubaa sax dëgg la loolu lepp liko waral moy jël lu ñëpp tok ñen ak moko ad biñ dé ba jéxal sofu si sax lay rek sofu xeeb ci géej gi te loolu promesse de campagne la woon mm-hmm. président Ousmane Sonko yag na wax ni buñ yalla mu joxé réew mm-hmm. ku fi tabaxoon to né grâce sax dañ ko tek ah. kon nag japp na loolu mom lu ci Sénégal yi xaar amul ku fa jëndoon demal ka nga ka la jaay mu rembourser ndax Sénégal yi mënu ko nang ndax yéen dañu soxla seen géej bu dund dund bu baax ata ah, ni ñu séddale suuf su Ndakaaru si amul benn Sénégal boo xam ne rafetlu ko kon loolu ku ku ñu jox lu toll état nga war rendre compte sa borom war rendre compte Sénégal yi dëgg-dëgg li tax Sénégal yi far la war nga ci nekk. Mmh. deux mois euh, yàggul mais deux mois doy na quand même pour que ngeen am deux en tout cas euh, nee nañ prisonniers politiques maa ngi koy wax sànq ba jaxate ak imam bi. Euh, est-ce que ay prisonniers déjà euh, politique nañu euh, wala da nga jàpp nii ñoo xamante ni dañu leen war a teg daan euh, pour que voilà ñu mën a assainir li nga xamante mooy espace public bi. man foog nga sama position moom ci imam man dama ne déjà mu jégalu xam naa Ousmane Sonko moom nekkuma ci place am te gëm naa ne li wax ji wëri wëri mën na leen bañ a déglu sax. Mhm. ndax ni ko yàggee waxee amul jot. ku xam rythme bi mu nekk di xam ne kii amul jot yu a ay vidéo wala lu mu mën a doon. Mhm. wallaahi yàlla ma tiim mais xam naa ne man président Ousmane Sonko amul jot googu. Mhm. mais li wóor-wóor mooy euh, kee moom ba mu jéggaloo la ko jéggal. li ci des nag moom mbirum yoon la yoon mooy def liggéeyam te man tamit bu nekkoon sa place dama koy jéggal comme que jéggalu na publiquement ndax tooñ moom lu mu rëy rëy maa ngi jéggal mën na ko faral. te gëm naa lay dafa jumma doon sax bindal doon na xas yi da xas waa Pastef yëpp. Ah xas xas yu ñaaw wax yu bon mais gëm naa ne dafa juumoon rek loolu laa gëm ndax man. wallahi sama téléphone bi bu bu boo ma ubbiloo woon ni mu ubbi ko dañ ci fekk ay siira yoo xamante si Ahmad Tijaan moo ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci Seydina Abubakar xam ne moo ko def kon dama koy déglu na woon xam-xamam kon ñi ma gën a fonkoon ci réew mi ci la dëgg-dëgg bi ma dégloo wax waxam jooju tax ma delluwaat gannaaw delluwaat ay vidéo ci projet bi gëm naa ne euh, wàccoon na yoonam bu yàgg yàgg yàgg te gëm naa ne bëri na jàngal leen te mujj gi anduñu woon moom ci position bi mu jëloon ndax nit diine dafa am loo xamante moom la mu am lu moom kon kooku moom jàpp naa ne du ma sori ci kaam am ndaw ko ndaa bu juum la rek ndaw ko ndaa moom loolu mën na <laughs> mooy dëgg ndax góor bu ne saaga ko ci réew mi waaw ah, dafa yaradiku kuy góor ci réew mi rek saaga na la comme saagawul sax war ngaa xoolaat sa bopp ndax góor nga wala doo góor waaw <laughs> ah, ku baax ci réew mi rek tudd na la teg colu kooku moom du ma dañ ko war a sanctionné mais dañoo war a joxe ci moom exemple boo xam ne lu mel noonu dina jeex ci réew mi fa mujjee mooy jooy jégalu yooyu du jàll il moo xam ne la fi woon jeex na ci réew mi ñu ko doon fal di ko yónnee ay Wave ak Orange Money ñooñu jóge nañ fi benn régime bu bees moo fi nekk duñ dugal suñu loxo ci système bi naan defal ne wala defal laa mais li ma waxoon rek li wóor bu mooy bu ko yoon mënut rek la ñu dinañ ko régler suñu bopp ndax nag Ousmane Sonko dafa sàkkare ci ñun dama seer ci ñun et pourtant kenn ku bokk ci yéen euh, Guy Marie Sagna nee na yenn wax yeeg yenn kàddu yi wax nañ koy mën a baal euh, yenn nit ñi jaruñ si tëj loolu moom posé Guy Marie Sagna la euh. xëy na ko jéggale mais ñun Ousmane Sonko dafa seer ci ñun ndax nag dañoo xam fi mu ñu féeti li dañ fal naan ku gën ku yilif sa junni morom du sa morom ku yilif sa junni morom du sa morom mm-hmm. Ousmane Sonko lii mu am ay pexe mayu ko te dafa seer ci ñun moo tax lu ko nit di wax na nga ko natta ci sa baay wala nga natt ci sa wasila ba xam war nga ko wax pare boo xoolee ne waroo ko wax sa baay waroo ko wax sa wasila nga bañ ko wax président Ousmane Sonko yi ma wax bu ne am na ñoom am na ñoo xamante ne Ousmane Sonko moo a ñoom bokkuma ci na ñoo xam moo a na ñoom kon nag nañ xam président Ousmane Sonko li muy représenté ci Sénégal bàyyi jàmbur di leneen jàmbur di leneen jàmbur kàddu yi mel ni ku ko mën a yëkkati nit di la défendre yow war ngaa xoolaat sa bopp waaw li wóor bu wóor de mooy man de man de jamono yi may deglu video bi eggelo ma taw suma ko gisoon tamit dina wax jaay sama ah, oh, bakam wala kan, mu jaay bakkan waaw ndax yara di ko dong la au ala fin du dara dañ ko wara sanction nak ba senegal yep xamne ki sanction nañ ko bu ëllëgee moroom mu do xalaat wax ju mel ne ko di nga ci génnaat ndax il faut am lo xamne mu jeex ci rew par exemple Ousmane Sonko liñ ko togn doyna seuk nak nag wara def moy di julli rakka di ko jégalu ndax ko xamne ne jiitu mu ko ensuite politique ba léegi yaa ngi heure boo ko saaga yàlla di ko gën a mu dem ba nag ba yilif réew mi war nga ko mën a bàyyi nag Comme <laughs> solo di fàttali ni mom Cheikh euh, Thioro euh, mbake honorable député du vice-président euh, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi mooy suñu ganti jotay jotaayu PMD mën ngeen participer ci bile waxtan da ngeen di envoyer juste sen question ci commentaire aussi di len demander rek ngeen di partager bile contenu ci loolu sax nañuy des parce que souvent dañu wax ni que li bëgg moy rupture systémique moy fexé ba li won won ni di tok di saga muy dox ñu lay yónnee xaliss ak yu ni mel ñu lay euh, fay pour ngay yàq ay euh, deru nit ak ay góor lool ñu bëri dañ doon wax nii quand même euh, dafa nekk lu ñu war a ñaawlu tey ji defi la pour yéen pour que ngeen fexewaat ba jubóole Sénégalais yi mais aussi li nga xamante ni dañ ko doon gis ci espace public bi ngeen jëlee ko fi bu baax. waaw loolu moom Pambatal man gëm naa dina saafara mhm. ndax nag Sénégal nag cinq dernières années yi li mu dund. ñooñu yàlla mu dundaat ko. Mhm. ndax demoon na ba famille yi tas. jamono ba diggante sëriñ ci taalibe yi ab écart te lépp dara wóorlu ko lu dul ay politique politicien rek kon jàpp naa ne loolu ñun bu fekkee dañoo bëgg a jubale Sénégal yi d'abord ci dëgg lañ ko war a defe ah, dëgg xam nga juboo moom baax na mais juboo ci dëgg dafa am solo waaw hmm. ah, ndax ñun buñ doon saaga duñ jot ci réew ndax ay kilifa ñoo àndoon ñun hmm. ñoo xamante ni mosuñu bëgg lu ñaaw contrairement ñooñu ku ci jógoon sax wax ci Ousmane Sonko lu baax boo xëyee yow la ñu njëkk def journal bi indil daggali saaga jant bi sox loolu ñu tuumaal ñëpp loo leen déggul amatu lu ñaaw baa jaxate yow mii boo duggoon ci vidéo yi day gis fu mu la saa loolu mooy léeru <laughs> si jël si wàll a ah, voilà kon kay kooku sëñ bi xam nga daal ñi gën a baax ci réew mi la saaga la euh. xam nga ko mënut a bàyyi imam Aliou Badara Ndaw sëñ bi imam Ndaw mën a xool jëmm jooju ah, di yëkkati kaddu yu ko wax ci moom kooku koo bàyyi sax war naa xoolaat boppam mm-hmm. kon il faut ba ci man mii lu ñaa waxal na ko kenn bayul kenn kon il faut que réew mi loolu mu jóge fi loolu nag ku ci nekk yow boo amee ko koy def yaa ko war a woo yedd ko ñu juboo ci dëgg daal ndax li wóor mooy ñun buñ leen fayu buñ leen fayu duñ jeexal mandat bi ndax li ñu def lépp mënuñ ko fayu te li ñu Sénégalais yi defal doy na sëkk ndax rek président Ousmane Sonko yëmul ci mën a fal ay maire yëmul ci mën a fal ay député mais bu kàddoom maneefal président de la république hmm. kooku li ko yàlla defal deseetu ko dara président Ousmane Sonko yàlla wàccoo naa moom Sénégal yi wàccoo naa moom ndax falloo nañu ay maire ñu fal maire yi maire yi war ko hmm. Sénégal yi gëm mu tax loolu mu falloo ñu ay député député yi war ko Sénégal yi gëm mu tax loolu mu falloo ñu président de la république ñu fal ko seen premier tour musul am ci histoire humanité hmm. musul am kon gëm naa ne noonu ko Sénégal yi falalee Diomaye mu sakku Sénégal yi nañ ko gungeel président Bassirou Diomaye fay noonu la ko Sénégal yi di gungeelee te bu soobee yàlla du am dara lu ko naqari balaa nit a egg ci ñoom daal dina jaar ci kaw 54 pour cent Sénégal yi ko fal yëpp door a egg seen kaw loolu mooy li wér te ab peuple nag xëju ci ginnaaw kenn ndax président de la république boo gis ci àdduna mu réussir peuple moo gunge loolu amul secret boo gisee Afrique yëpp naan Kagame Kagame parce que waa Rwanda mhm. ñoo jógee fu difficile comme fii Sénégal jóge mhm. donte Rwanda moo gën a métti ndax ci guerre civile lañ jóge mhm. mais biñu ba xam ne booloo nekk benn mooy tax seen réew mën avancé dañoo booloo ñëpp topp ci ginnaaw Kagame Rwanda démocratie am fa bi ñoo mangé nekk ci ginnaaw Kagame Kagame défier tubaab yëpp réussir lee mu réussir Rwanda ba Kigali nekk première capitale bi gën a set Afrique bi muy ñëw Turquie Turquie parce que réew ma na complètement mais mooy seul président de la République boo xam ne mas nañ ko coup d'état askanam génn tëdd ci kaw de combat yi ne coup bi du réussir 24 heures ñu delluwaat ko pouvoir pouvoir boo xam militaire yi jëloon nañ ko pare askan wàcc ne ndax kii ñun ñoo ko fal askan yooyu ëpp ñu fulla ndax nag Sénégal li ñu traversé moment yi yëpp wallaahi réew mu doon militaire jël nañ nguur gi mais matuk Sénégalais yi ak gis-gis bu sori bu président Ousmane Sonko am xam nga ñëpp ñu ngi naw peuple Sénégal mais gis-gis bu sori bu président Ousmane Sonko ndax bu doon beneen chef de parti la comme ñii ku gars yi doore sama bopp ma la gënal du bañ naa la lay wax maay mooy Macky Sall foomoon élection yi woote waa ak mu bokkaat nanga ma nanga mais déedéet ñu dàq élection mu bokk wallaahi mais daf nga xalaatu moom man projet laa projet bi man rek dafa am ay gor yu ànd ak man nee nañ jiital jomaay kon jàpp naa ne kooku erreur la boo xamante ni daf koy nekk bu adduna tukki d'accord nit ñuy jàngale ay ñoom Thomas Sankara mhm. di ñu ko jàngale ay ñoom euh, Mandela. di ñu ko jàngale ay Kwame Nkrumah. di ñu ko mm-hmm. jàngale ay Patrice Lumumba. Mm-hmm. wallaahi histoire dina ñëw ñu jàngale noonu président Ousmane Sonko te moo leen di gën a kawe fuuf ndax li mu def ñooñu. ba tey bu ñu ci euh, walum saga yoy dañuy des ci presse bi euh, yank doon wax sank euh, presse bi ñoo voilà jëmna ji am ay jafé jafé semaine bi ñu génn rek convoqué nañ fi deux journalistes par la suite ñu bàyyi leen ñi quand même japp ni dafa am presse bo xamanteni dañuy juk pour déstabiliser bi le régime japponi déstabiliser mo bu reuy la ci régime bu dogay tok est-ce que presse sax déjà amna capacité surtout presse yoy non am capacité déstabiliser régime bu. bu doogay toog. loolu nag Pape